daanaka noonu alxinaa anhu bi ajnabiyin sart la aw bi mutmari ñu mën na doyloo jaambur walis ko sart la ca amaa loo xam ne jaambur mënu koo remplacer damir mënu koo remplacer ah kooku kenn du ko def muxbar anhu billadi dégg loolu moo tax nag soo demee ci jaa rajulun karimun du dëgg du dëgg kon sifa ak mawsuuf kon doo ca doo doo jël benn ba bëgg koo def muxbar anhu billadi amma boo leen boolee nag moom dara nekku ca du dëgg ma soo nee tey ra'aytu rajulan sarifan du dëgg kon su fekkee rajulan sarifan nga boole lépp kooku mën nga ko def muxbaran billadi nga ni alladi ra'aytuhu rajulun sarifun waaye soo bëggoon jël sarifun dong mbaa rajulun dong loolu du war a mën a nekk du dëgg doo mën ni alladi doo mën ni alladi ra'aytuhu zarifan rajulun li annaka law axbarta anhu tada'u makanahu damiran fa yalzamu wasfu damir kon hooji zarifan mooy naatam ah déedéet te damir laa yusafu wala yusafu bi waaw xam nga ni lisim yi day ñeenti xaaj ci war wàllu sifa dégg nga am na lisim jooxaani yusafu wa yusafu bihi du dëgg ni ki ismul ishaara mënees na ko wasafe mënees na ko wusal sifa am na lisim jooxaani la yusafu wala yusafu bihi deesu ko du doon sifa deesu ko wutal sifa ni ki damir dëgg kenn du ko wasafe dara kenn du ko wutal sifa am na yoo xam ni yusafu de wala yusafu bihi ni ki tey da alam ab alam mën nañu ko wutal sifa nga ni jaa zaydun at tawilu waaye moom kenn du ko def sifa am na koo xam ne yusafu bihi de waaye laa yusaf ni ki tey mustaqi ni ki karimun tey wala tawilun mën nga koo wasafe waaye moom mënoo ko wutal wasaf li anna sifata la yusafu yow dégg nga noonu moo tax mu ni fara'i ma ra'aw kon na nga sàmmoonteeg loo ñu sàmmool te mooy sart yi ñu la wax sàmmoonteeg muwaafaqa ca damir jaag fa mu dellu ak itam bu mu doon loo xam ni dafay nangu na doon loo xam dafay nangu ko taarifal day doon loo xam ne na nangu ko ko mujj kon na nga sàmmoonteeg atte yi ñu sàmmoonteel te mooy yi ñu jàng wa axbaru huna bi al an baadi ma yakunu fihi il filu qad taqaddam wa axbaru xabaare nañu huna fii bi al ci al gannaaw ali itam mën na doon e ismu mawsul dana koy doon kon it danañu ko def ni ñu defoon ci ladi am baadi ma maanaa nga xabaare ko lenn ci la nga xam ni yakunu fihi lfilu qad taqaddama ci al ni ki soo ne waaw وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح سوق صلة منه لأل كسوغ واق من وقى الله البطل وأخبروا دنا يدف خبر هنا في بأل أل أل معنى عن أل دي. بابو في جس عن عن جو في جس معنى بالا لول باي بكو ديكو فاتلي وأخبروا عنها بأن معنى عن أل ndax ismu mawsul lakum ladi an baadi ma maanaa bi baadi ma danañu ko xabaare léegi lenn ci la nga xam ne yakkoonu da nekk fii ci fiilu al fiilu fii qad taqaddama jiitu na dégg nga in saxa ndéem wér na sawxu sila silatin sawxu silatin minhu li al su fekkee mën nañ ci tëgg silas al ni nga ko mën a tuggee ci darab silas al xam nga ni sifatun sarihatun lay doon ni kon ka sawxi waaqin ni ki tëgg gi nga tëggee baatu waaqin waaqin ismu faayil nga tëggee ko ci min qawlika ci feel ji waqaa allahu albatala waqaa fegal na allahu yàlla albatala jàmbaar loolu jumlay feel la waqaa nag mën nga ci tëgg waaqin ndaxte li si mu feelu mutasarrif la waaw kon soo ne daraba zaydun amran daraba mën nga cee tëgg daarib nga daa fu nga ol nga andi ladi nga andi al nga ni ad al ad daaribu zaydan amru ba nga ne daraba amrun zaydan wala daraba zaydun amran nga ne al addaaribu amran al addaaribu xanaa foog nga ne addaaribu addaaribu zayd amran zaydun ni nga naan alladi daraba zayda amr dégam feel ji mu mënees na ci tëgg sifas al ndax du jaamit kon nee na mënees na ko moom la ni wa axbaru huna bi al an baadi ma yakunu fihi lfilu qad taqaddama ni ki daraba zaydun amran in saxa ndéem wér na sawqu silatin li al minhu bu fekkee mënees na ci tëgg silas al ndax mutasarrif la du jaamit ni ki misaal mi ni nga tëggee waaqin ci ba nga nee waqalaahu al batala kon bu la neexee ne al waaqihi llaahu al batalu waqa allahu al batala nga ni al ka nga xam ne waaqihi llaahu yàlla fegal na ko al batalu du dëgg wa in yakun maa rafaat silatu al damira gayriha ubiina wan fasala wa in yakun bu fekkee dafa nekk maa rafaat silatu al li silas al rafa bu dee damira gayriha damir ju dellu ci keneen ku dul moom kon nag ubiina ñu faccal ko te mooy wan fasala mu facc wan fasala dafa tafsiraat ubiina rek ibaanatu mooy faslu ubbi nañu facc ko ñu fa faccal ko rek mu faf ko yeggale ni wan fasala te loolu mooy kon day facc damiru mun fasil lay doon ah yaani an al wasfa al waaqia silatan li al sifa si nga xam ne dafa doon silas al in rafaa damiran yaudu ala gayriha su fekkee dafay damir ju dellu ci lu dul alja in fasala ndax li jarayaani silati ala gayri man hiya la sifa si dafa jaar ci ku dul borom damir ju facc ja mooy tax ñu xam li nga bëgg a wax wa in aada alayha su fekkee ca aljala dellu istatara mu nëbbu maanaam boo ni woon ballaxtu min alcheykhayni ila zeydina risalatan maa jotal jóge ci ñaari mag ña ab yóbbante jëme ci zeyd ballaxtu min alcheykhayni ila zeydayni risalatan bu fekkee axbarta an ta dégg nga ci ballaxtu looy wax da bul andi la di ci al ngay wax da nga naan al ka nga xam ne mu balliqun aji jotal la al ka nga xam ne muballigun aji jotal la min ash-shaykhayni ila zaydayni risalatan kooka ana seeto ana ji du dëgg fa fil muballigu damir mustatir wujuban du dëgg al ka nga xam ne muballigu aji jotal la mu damir ji ci muballigu ma ngi dellu ci al ndax moo ko moom waaye bu dellu woon ci keneen day facc dégg nga ah waaw waaw dégg nga dégg aywa bu fekkee nag dangaa bëggoon a xabaare ci misaal minu la wax cheikhayni ja qulta nga ni al muballigu ana minhuma ila zaydayni risalatan zaydun kon na nga faccal damir jëde al muballigu ana ndax ndax dafa delluwul ci moom mooy wa in ma rafaat silatu al damira gayriha ubina wan fasal boo nee al su fekkee ni cheikhayni la da nga naan al muballigu ana minhuma ila zaydayni risalatan kooka al cheykhaani cheykhaani boo ko jëlee waaye su fekkoon ni misaal mu njëkk mi xam nga ana ja maanaam damir ja dafa mustatir la ci muballigu léegi damir ji muballigu rafaa dafa delluwul ci kële du dëgg nga ni alka nga xam ne muballigun aji jotal la ana man min huma jóge ci ñoom ñaar al ña nga xam ne alkat xam nga ni moom damiru mustarak la ñaar ak mbooloog yëpp ci yem al ña nga xam ne al ña nga xam ne muballigun aji jotal la ana man min huma jóge ci ñoom ñaar ila shaydayni risalatan ñooña cheykhaani al ñaar ña nga xam ne ay xaw ma yii daal ñoonu rey banu dee noon fa ana marfuun bil muballig waaye nag laysa aidan ala al delluwul ci al ji li anna al murada biha huna musanna al ñaar ña nga xam ne fa yajibu kon ibrasuhu loolu mooy wa in yakun ma rafaat silatu al damira xayriha biina woon
ab lim nee na li nga xam ne mooy alfaaz yi nga xam ne mooy tegtale la ñuy wàññi alfaaz yi koy tegtale ndax boo ne salaasa li muy tegtale mooy ñetti jëmm yooyu wala yetti lu mu mën a doon alfaaz alfaaz yi lañ jublu ci adat xaddu adat nag su yenn téere yu mag yi def kii danañu ko xadd bu ñu nee luy adat ñu ni adat day ma ma saawa nisfa majmui xaasiyatayhi alqaribatayni aw ilbaidatayni ala sawa ñu ni adat mooy lu yem ak genn wàllu
boo boolee ñaari peggam yi yaar yi ko peeg li ko féet li ko peeg ci kaw ak li ko peeg ci suuf soo leen boolee seen genn wàll nee na adat mooy loo xam ne mu day yem ak genn wàllu ñaari xaasiyaam yooyu soo leen boolee xa- nisfa xaasiya tey bi kaw ak bu suuf ajm- al- nisfa xaasiya tey al majmuwa tey ni buñ leen boolee genn wàll nee na ñaari pegg ya nag alxariba tey ni yu jege niki soo ne ñett ñeent moo sës ci moom ci féete kaw ñaar moo féete moom ci suuf ñooyam nu ñu ko jegentee nag wala albaida tey ni ala sawaa'i wala nga xam ni bu yu yu sore la waaye it ñooyam ndax ku ci ne benn degré dox diggam ak moom ñett nga xam ni ñeent rek nga jël nga jël fab juróom aywa ci suuf itam ñaar nga jël fab benn kon juróom ak benn soo ko boolee juróom benn lay doon su ko defee kon ñett dellu yem ak ñoom dégg nga su fekkoon ni ñeent nga jël ñaari xaasiyaam yi sës ci moom bi féete kaw mooy juróom bi féete suuf mooy ñett muy juróom-ñett genn wàll ga deeti ñeent su fekkee ni ya ca kaw a te ñoo yem maanaam nga jël juróom fab juróom benn ca kaw jël ñett fi suuf fab ñaar du dëgg muy lan juróom ñett juróom benn ca kaw ak ñaar ci suuf waaye dañoo yem de suñu yemul woon nga kaw ga nga jàll ba ci juróom ñeent suuf bi moom nga jël ñaar su ko defee kon du am genn wàllu bu muy yemal moo tax ñu ne al adadu ma sawa nisfa majmuatayhi al qaribatayni aw al baadi alayhi salaam loolu nag moom du xaddu xanaa bëgg a tafannun la rek ak waaye yaakaaruma ni ñi dafa am ñoo xam ne dañu daan toppatoo xudóot yi lu ñu wax ñu bëgg koo xadd loolu mooy lan xaqiqaam mooy lan te xaw ma nag man wax dëgg faidab loolu min xaarij xaw ma ko salaasatun bittaa'i qablu déedéet waaye bët beedul ji salaasatul bittaa'i qul lil ashara fi addi ma ahaduhu mudakkara fi diddi jarri nee na salaasatun ñett bittaa'i taalay àndal fi addima ci boo dee wàññi loo xam ne ahaaduhu ay benn benn muzak boo dee lim loo xam ne ahaad ya mu benn benn ya ay muzakkar la kon da nga naan salaasatu rijaalin qul waxal loolu lil ashari ba ba ba ba ngay àgg fukk ba ba nga dem tisatun tisatu rijaalin ngay wax fi addima booy wàññi la nga xam ne ahaaduhu ay benn benn muzakkarat jarit rafleelal salaasa ci taafi diddi ci safaanu muzakkar bu dee mu annas waxal salaasu banaatin tisu banaatin dégg ak li ci seen diggante su ko defee salaasa ba ca achara te bu dee góor na am taa bu dee jigéen na ñàkk taa nee na wajruur jaral al mumayyiza tamyiizu adat ba dégg nga de jam an mbir mu mu nekk di jam u nag jam u taksir lay doon dégg nga bi lafzi qillatin tey nal nay lafzu jam u ju néew jamuy qilla ndax jam u taksir dafa am qilla ak kasra jam u tasxiix moo di loo xam ni dañoo wéral mufrad ma soppi wuñu ko salim la muzakkar bi mbaa mu annas safaanam nag mooy taksir maanaam li ñu tammate ay li ñu soppi li ñu soppi mufradam jam u boo xam ne foo ko fekk mufrad ma la ñu soppi mooy jam u taksir daananu ko wax ay xudóodam ci aajarooma ay ñaata juróom benn façon ngi soppi am na daananu ko wax ay was jamu taksir nag dafa am ñaar day am li ëpp ci baat yi day am yu bari ci baat yi day am jam u xilla ak jam u kasra loo xam ne bu fekkee ni daal li ngay lim ëppul fukk maanaam mooy jam u xilla dégg nga bu ko ëppee mooy jam u kasra su fekkee baatu jam u bi nag am na yaari siixa am na siixatul qillati ak siixatul kasrati kon eh, li ñu war di def mooy su ëppul fukk nga jël qilla su ñu amee su ëppee fukk nga jël kasra lu dëgg ah dana am yenn baat yoo xam ne nag genn siixa lay am mën nay kasra dong ni ki rajulun fi aalun rek la am te loolu jamu kasra la rijaalun rek nga wax te loolu siixatul kasrati la waaye nag bu dee ñetti salaasatu rijaalin ngay wax ndaxte rajulun benn jam boobu la am moom la ñu doyloo lu tax ah rijlun ji firi tànk jam u xilla rek la am arjul rek la am te ar afulu nag moom jam u xilla la kon soo doon indi jamu kasraat arjul ngay indi dén dén sanu xatti an na ma ko wax aydihim wa arjuluhum min xilaafin kooka ku xam ñaata junni lañ ci àddina kenn da koo mën a xam waaye arjul ngay wax ndax rijlu benn la xëy na xikma bi nag mooy wattandiku lënt arab ba nga xamee ni rajul ak rijli ñoo bokk mbindin ah su fekkee ni ku ci ne rijaalun nga ko jamu ñu lënto kon mooy tax kii ñu birale ko jamu kasra doonte lu néew la salaasatu rijaalin ni ngay waxe mi'atu rijaalin wala ahada asara maanaa salaasatun wa ishrona aywa waaye yooyu moom dana wax ni seen tamyiz damay andi mufrad ba rek rijaalun moom bu ñu doon junneet kooku jamu kasra la rijlun ji firi tànk bu doon junneet dégg nga arjul ngay wax dégg nga rajulun góor bu doon ñettit rijaalun ngay wax bu doon ñettitam waaye bu fekkee dafa am xilla ak kasara kon ñu di ko def mu ni kon li tàmbalee salaasa ba ci tisa tamyiisam nay jam'u bi lafzi xillatin ndegam am na lafsu xilla nag laa wax wuteeg rijaalun tijtatu rijaalin salaasatu rijaalin nga wax ndax amul lafsu xilla dégg waaye bon nga ni xamiirin mooy mbaam yu bare ahmiratun mooy ay mbaam yu néew maanaam jamu xilla ñeenti siixa la am afilatun afulu summa fi'la summa ta afaalun jumuu xilla loolu ma nga ci buntu jamu dégg nga afilatu niki salaasu ahmiratin yetti mbaam afulu niki salaasatu aklubin yetti xaj fi'latun niki salaasu sibiyatin ñetti gone fi'latun jamu xilla la afaalun salaasatu ajmaalin ñetti gëleem suñu baree nag nga indi fi'aalun di jimaalun xale suñu baree nga indi fi'laan sibyaan su su fekkee lu bare loolu baat bu am yaari siixa moom su ko defee nag loolu dana wax ci biir jamono ba ni danañu léeg-léeg ñu fekk bu am xilla te ñu jël bu na ne wa baadu di bi kasratin loolu dana ko wax ci foofu salaata quru'in ñett rek la te fu'ulun jamu kasra la te xam ne aqra am na salaasatu aqra'in te afaal afaal jamu xilla la kooku nag mooy seen remplacer benn ba moroom ma jëfandikoo nañu ko léeg-léeg mu ni wal mu ma wajrur jaral al mumayisa tamyisu salaasa jëm tisa jam an mbir mu muy jam bi lafzi xillatin ci lafzu xilla comme ni ngay waxee maanaam arbaatu ci kaw su amee de amma arbaatu darahima ngay wax ndax dirham amul jamu lafdu xilla darahim faalil nag jamu kasra la waaye su ko amee nga ne tey salaasatu ak lubin filak sari ci li gën a bare nag la nu wax amma bu dee ay tàng yu néew nag li ma la wax da juyoo googu dana ci am wa mi'atan wal alfa lil fardi adif ne wa adif laafalal mi'atan dégg nga de ak alf yooyu yaari baat seen tamyiz dégg nga na nekk mufrad nga ni mi'atu rajulin maanaam doon mi'atun rajulan ci góor waaye loolu nga ko laafal mooy tamyiz bi de salaasatu rijaalin rijaal mooy tamyiz bi waaye dooni salaasatun rijaalan ci góor déedéet da koy laaf waaye mooy tamyiz bi du dëgg ndax moo xamale li ñuy lim lu mu doon li nga tudd pour mu ñu xam liggéey lim ay xeet wan la looy tamyiz nay jamu nag bi lafzi qillatin fil aksari nin wax bu dee mi'atu wala alf ah adif laafalal mi'atan ak alf lil fardi ci mufrad nga ne mi'atu rajulin alfu rajulin wa mi'atun baatu mi'a nag moom day laafal tamyisu mufrada ci ëpp waaye nag ah qad radifa qad rudifa tofal nañu ko bil jami ci tamis bu ñu def siixatul jami nasran ci néew ni ki qiraatu sab maanaam miati sinina wala bisu fi kafin salaasa miati sinina ci laaf tamis sinina kooku jamu kasra la kooku ariwul lu mu am ndax salaasu miati sanatin muy mufrad moo ëpp ah wal kisaay waaw ci qiraatu xamsata kisaay salaasu miati sinina wa ahad adkur wasilanhu bi achar murakiban qaasida maadudin zakar waskur tuddal baatu ahada wasilanhu jokk ko bi achara ci baatu achara murakiban nga di ko tarkib tarkibu tarkibul masji te mooy tarkibu xamsata achara dégg nga du sax tarkibul masjidi kooku dañ koo beral turu tarkibu xamsata achara ndax tarkibul masji dégg nga murakabul masji aywa ah danañu ko liraat kenn du ko binaal ci jus ay ni bu jëkk ba la ñuy binaal ci fata waaye bu ñaareel ba ca la liraab jay jaar nga naan haadihi baala baku daxaltu baala baka du dëgg kon baat bu mujj ba ca la liraab jay tarkibu xamsata achara nag buñ gisee ñaari baat yu ñu tarkib te bu ne dañuy binaal fata ga ci mujj nax yoone yi tudde ko tarkibu xamsata achara waaye duñ ko tudde tarkibul masjid tarkibu xamsata achara la ñu moo tax su ko defee nga ni jaa ahada ashara rajulan du mooy faa'il waaye da nga koy binnaal di alal jus ay ni da ngay boole ñaari baat yi ahada ashara rajulan wasilanhu bi ashar qa murakiban qasida maadudin ngay aji jublu lu ñu lim loo xam ne zakarun góor la waqul waxal la dat taanisi ihda ashara wa siinu fiha an tamimin kasra waqul waxal la dat taanisi fa boodee wàññi lu jigéen ci ahlum ci be fukk ak benn nga ni ihda asharata mraatan foofu moom ñaari jus u yëpp alaamatu tanis da cay feeñ ihda alifu tanis lay àndal noonu asharatu taawu tanis lay àndal du dëgg bu dee bu dee ñaarit ba tey noonu day ànd ak maadoot ba nga ni israt isnata asharata imraatan dana dana tudd loolu ca kanam amma boo fa xasee jóge nag ah su muxaalafa daal di agsi ci nayif ba wa siinu siinu asharatu ba ñu ko booleeg ixda fiiha nekk na ca kasratun kasra an tamim ñu di ko nettalil bani tamim ci seen luxa ñoom danañu ixda ashirata ashirata wa maa gayri ahadin wa ixda maa mahuma faalta fafal qasda na nga def ci baatu asharatu gannaaw bu mu ne siinu asharatu tamim danañu ko kasra na nga def ci baatu asharatu dégg nga maa xayri ahadin wa ihda bu àndeeg baneen baat bu dul ahadoog ihda na nga ko def mama huma na nga ko defoon ànd ak ñoom dégg faf al defal loolu qasdan ci jub ni ngay waxee ahada ashara rajulan nga naan isna ashara rajulan salaasata ashara rajulan ni ngay waxee ihda asharata mraatan ah noonu bu àndeeg salaasaat sala sala waaw waaw dégg nga maamaahuma la nga defoon ak ñoom xoolal ma foofu alta maahuma ci asar min a tajridi min a taa'i ma al muzakkar su dee lu góor du ànd ak taagi wa isbatiha ma al muannas fa taqulu indi isna ashara ak salaasata ashara ila tisata ashara fi l muzakkar wa snata asharata wa salaasa asharata il muannas ci baatu ashara bu dee góor bu mu ànd ak taa gannaaw dafay murakkab wute naag nayif bi nayif bi moom bu dee góor jigéenalal buy jigéen góoralal su àndeeg asharatu nag dégg nga moom nayif bi ma nga ca nan moom moom du jóg ci muxaalafaam waaye kon baatu asharatu moom day daal di ànd ak góor ñu góoral nga ni nga ni isna ashara rajula su dee jigéen jigéenalal nga ni nga ni salaasa asharata comme li jigéen ngay lim asharatu taa lay àndal faw ci murakkab du ànd ak taa faw ci muzakkar nayif bi nag bu dee góor muy góor muy jigéen bu jigéen muy góor looloo tax nga naan salaasa asharata mraatan salaasata ashara rajulan seetal baatu ashara toujours ma ngi def muwaafaqa ak maadud gannaaw xas nay murakkab nayif bi ma ngi doon muxaalafa waaye nag ci sartu bu muy benn ak ñaar ñooñu ñoom dañuy ànd ak aqdu ba def muwaafaqa seetal ahada ashara rajulan ñaari baat yëpp góoral nga leen ihda asharata imraatan ñaari baat yëpp jigéenal nga leen isna ashara rajulan ñaari baat yëpp góoral nga leen isnata asharata aynan ñaari baat yëpp jigéenal nga leen bu jeex na nag nga ne nag salaasa dikk nga defee noonu la ñu ne déedéet salaasata ashara rajulan salaasa asharata imraatan ba ba ngay def loolu noonu mooy adat bi dégg nga loolu lépp dana ci jaar na mu ni wali salaasatin wa tisatin wa ma baynahuma in rukkiba ma quddima baatu salaasatu ba ci tisa ak li ci seen diggante wa ma baynahuma ñeel na leen ma quddima la ñu dawloon ci ci muxaalafa in rukkiba suñu leen tarkibee booleeg aqdu bi asharatu le la leen ñeeloon ba ñu leen beree te moom jëkkoon na ko wax ah fi diddi jarrib di ne nam waxoon ca bay baytu jëkk wa ci muxaalafa gi nee na bu ñu leen tarkibeet loolu yi ñu dawaloon ci atte ñeel na leen bi nga ko booleeg ashara mooy ni nu wax nga daal di ni salaasata ndéem góor ga nar a lim ashara rajulan su dee jigéen nga ni salaasa asharata mraatan nga xam ni limatagul fukk moom la ñuy wax nayif kooku moom ci bu xaalafa lay ne bi nga ko tarkiiboo bi nga ko tarkiibul dégg nga waaye mboolem aadaat yi soo tarkiibul dara ber laftu noonu lay nekke benn laftu la da nga naan salaasatun arbaatun xamsatun loolu moo doon cosaan dégg nga wa awli ashara tasnatay wa asara isnay ida unsa tasha aw zakara loolu laa la doon wax dama la ni benn ak ñaar ñoom toujours ñoom mu waafaqa la ne ci salaasa la tàmbale loolu la jaar ca tam léegi wa aw li méngaleel tofalal asharata baatu ashara def tofal ko ci is isnatay nga ni isnatay asharata mraatan wa ashara baatu ashara nang ko méngale isnay rek muzakkar nga ni isn